bokki julit yi rawatina bokki taalibe yi amaan nañ mbégte ci daje ci pak bu tedd bii nga xamante ne bii bokk na ci pak yi nga xam ne bu ñuy wax Touba moo tax te moo di kër Serigne Salihu Mbacke moom Serigne Touba xaadimu rasul yàlla nañ ko yàlla fayal ko ne xam ne diggante Serigne Touba ak Matlabul Fawzayni te ci barab bii la nekk ñu toog nag ci jataay boo xam ne dongoy tarbiya yi jaaroon ci loxo yi Serigne Salihu Mbacke ba am ngërëmul yàlla ci moom delluwaat ca seeni kër. di dégluwaat ndigalul seriñ bi ak di ko liggéeyal ndigal li leen sëriñ Cheikh joxaat nag di seen jëruñ ci sëriñ Saliou te mooy fekkiwaat seen bokki dongo ya nañ leen baaxoo daan leen dimbalee ñu fekk leen fa dimbalewaat leen ci mbàcc ma ak njëri ma ak roñ-ngooñ ma ak la ca aju lépp moo tax ñu toog fii ci kees gi nag fas yéenee yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ yi bu Ndoy mi nga xam ne mooy wax ci turu dongo yëpp jëm ca liggéey boobu nga xamante ne bii ajjuma le treize moo war a doon départ bi ñu fas yéene tàmbali liggéey bi ñu bàyyee kàddu gi ak sëriñ Soy bu Ndoy jërëjëf sëriñ Saliou noo ngi ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal te may ko ak wér moom njabootu sëriñ Saliou gépp ni ngeen ko dégg rek ndigal li daan jóge moom jëm ci dongay tërbe yi moo jugaat ci njiitul sëriñ Abdou Ndiaye jëwrin ndigal li nga xam ne sëriñ Cheikh santaane na ko muy mbàddalum tool yi xelkom yi ak yeneen daara yi mu joxe ndigal la 13 décembre 2024 ngir ñu war caa dem loolu moo tax jëwriñ ñi teew fii di woo mboolem jullit yi mboolem taalibe yi mboolem ñi nga xam ne aju nañ ci sëñ Saliou rawatina dongay tërbiye yi nga xam ne ñoom la ñu sant liggéey bi ak soppe yi diwoo ñi ci réew mi ak ñi ci bitim réew ñëpp di leen leerale liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh santaane ngir ñu war koo defar muy liggéey boo xam ne nii mbaddalim gerte la te moo di bàcc gerte yi euh, jëri ko roñ ko for tool yi gerte ga fa nekk ak ngooñ mi yëpp ba mu set mel na mu war a mel ñu door faa jóge daara yii nag mooy daara yi nga xam ne fas nañ fa yéenee dem matal liggéey bi ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo fa war a jëm lu ci mel ne daaree daara xuddoos ja ca xelkoom sëriñ moor Fall ak ñamu àndal ñoo fa jëm ña ngay déparé Dakar asalem école Madieye Sall daarul Mouayn sëriñ Modou Aada Cuun moo fay dem ak ñamu àndal di bàyyi ko pencum paatee kan ca mboora daaru Chakour sëriñ Xaarim Seck ak waa nooru daare ni Touba xelkom ci njiitul sëriñ Bassirou xel koom ñoo fay dem di bàyyi ko dakaar Pikine ak Janatu Mahwa Touba bu dee xel Xelkom Serigne Cheikh Jenn ak ñi mu àndal di waa Njaareem ñoo fay dem seen départ nekk Njaareem kër sëriñ Saliou bu dee jës bu Serigne Samba jaw ak ñi mu àndal di waa Daarul Minan ñoo fay ñoo fay dal euh, seen départ nekk Touba Daarul Minam buntu kër Serigne El Hadji Ndiaye wakkaan xaqan bu dee Daaru Salaam Xelkom Serigne Chouaïbou Ndoye moo fay dal ak ñi mu àndal départ bi nekk buntu kër sëñ gi ci Touba bu dee Lagan sëriñ Abibu Busa moo fay dal départ bi nekk rond point jumaay Touba Mbakke kër sëriñ Cheikh bu dee Daaru Salaam Murit bu dee Touba Daaru Salaam Murit sëriñ Modou Diop ak ñi mu àndal seen départ nekk corniche su sëriñ Cheikh Mbakke bi ci Touba ak euh, sëriñ Maam Cheikh Samb ak ñi mu àndal seen départ nekk Colobane kër sëriñ Touba ga ca Dakar euh, bu dee Daaru Tansil sëriñ Modou Mor Mbacké ak ñi mu àndal seen da seen départ nekk Touba yoonu Daaru ak commission bi nga xam ne nag ñooy commission organisation ci njiital sëriñ Moustapha Guèye kon ñii mooy mbooloo yi képp koo xam ne nii am nga barab boo ci jëm te bëgg ca leeral numéro yii di daw ci suufu écran bi boo ci xoolee da nga gis numéro ka nga xam ne mooy njiitul tool ba nga jëm leneen lañ cey dool itam mooy di leeral ñëpp na leen ndigal li le treize la ajjuma mooy ndigalul dem li mooy ndigalul tàmbali liggéey bi koo xam ne it da ngaa jiitu ji ngir defal ay dara itam nga bàyyi ba ajjuma liggéey bi door a tàmbale di fàttali itam ndigal li nga xam ne sëriñ bi boole woon na ko ci bi muy joxe ndigal mooy yoon wi demin wi nit ñi def ndànk oto yi itam ñu koy sarta sarsin woo xam ne nii moo moo méngoog li yoon tëral ci e, réew mi beneen bi ci des itam mooy jimmi tool ya sëriñ bi wax na ne nañu farlu bu baax ci for gerte gi ci suuf ba mu set wicc mbuus yi nga xam ne itam mbuusi ndox la yu ñu fay yóbbaale di ko fa bàyyiwaat muy yàq lu baree bari ci àll bi ku ci dajale ay mbuus nañ ko taal ba mu jeex tàkk ñu door fa bàyyi ko wanag ya nga xam ne itam dañ koy gas ngir di fa dox aajo bu loolu noppee ñu defaraat ko ba maasaloo balaa gàllankoor ñiy liggéey ci tracteurs yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf mbokk yi kaddu yaa ngi noonu kon ci ndigalul jëwriñ ji de di Serigne Abdou Ndiaye ak ñi mu àndal ñu ngi tàllalaat loxo mbooleem transporteur yi ne ci biir réew mi bàyyi leen daan jàppale ci liggéey bi. waaye nag ku ne xam ne Serigne Saliou bari nay soppe ba xel koom it bari nañ soppe kon fa ab soppe mën a ne ci biir réew mi wala bitim réew liggéey baa ngi noonu di liggéey boo xamante ne bii Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou moo ko jox ñi nga xam ne ñooy dongoy ter bi ñu woo seen borom bi dongo yi nag fu ngeen mën a nekk ci diggante daara yi Serigne Touba yi bàyyi wun ci yenn daara ndax dongob tarbiya ak morom ji ñoo bokk ndey ak bàyyi kon la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mamadou Moustapha ba ci kër Cheikh Mamadou Mourtala ak seexi Serigne Touba yi kum ci mën a nekk ña nga lay tàllal loxo di la woo ci liggéey boobu di ñaan nag képp koo xam ne teg nga sa ci xeeti daara yi jum ci mën a doon yal na yàlla tàbbale ci biir wa hablahum maaraamu wasalaamu aleykum